Sénégal la ñu jëloon doon dem Barcelone waaye barsàq la ñu mujjee ca ñooñee nga xamante ne ñoo ca faatu journal bi dañu jàpp leen ñetti jigéen na nga ca tey am na ci benn jigéen boo xamante ne ji moom dafa ëmboon faatu na doom ja moom it daat cee jaaree faatu yéen a kaay bi nañu Barcelone wala Barsàq man naari naaraa ngi dellu si waat na askanu Sénégal ñoo ngi nekk ci jafe-jafe Sénégal googe yéen a kaay bii di réew mi ma laajoon ko sànq Pape Dello Silma ko moom la ñu fas yéene toogee ca Genève la ko fa yóbbu moo di Sénégal dafay présenté ab rapport am jëm ci wàllu torture maanaam toroxal ak xor ñooñal nit ak ni ñu koy defee loolee tax na yéen a kaay bi nañu nguur gi am nay avocat ki kàngam yoo xamante ne ñi daf leen a dajale ngir ñu dem ca Genève bu Sénégal tegoo dossier ñu lijjanti ko ba mun a cook lu ca nekk ñu xool ko nan la ñu koy défendre ba mën koo lijjanti dañuy lijjanti di leneen mu di Youssou Ndour mi fi ne lijjanti na juróom-ñeenti milliards ngir lu aju ci wàllu euh, mémorial bu gore ci xët mu njëkku direct info waa ji nga xam ne moo di Abdoulaye Mamadou Guissé weddi na ko ba mu set wecc nee na juróom-ñeenti milliards yooyee du xaalisu Youssou Ndour Youssou Ndour daa fekk ñu lijjanti ko ba mu noppi moom mu jël ko dem présenté ko Macky Sall waaye beneen waaye bu ñu naan Amadou Sall moom moo ko lijjanti Abdoulaye Wade ak nguuram Abdou Diouf ak nguuram dañ cee boole woon ak yaccaaral moo tax li nga xam ne moo di mémorial bu Gorée taxawagul ba léegi damay taxaw ci loolee dem seeti leneen mu di wàllu justice ak mboolem yéenekaay yi xëy ak ñun doon atte démb Cheikh Béthio Thioune ca kaso ba ca Thiès ne moo di Luc Nicolaï Nicolai ñu doore ko ak lu soxal mbirum Luc Nicolai yéen kay bii di la quotidien ne ñu combat du nul la maanaam yëfi daal ci gàttal dañu ko renvoyé ba beneen yoon observateur xey ko fel nañu lig Nicolay un procès d'exception mom motax yeuf yëf soti wul Modou Xarañ Lo ma nga ca woon Doubalees ma nga ci won Zos ñoom ñëpp démb ñoo nga woon ca tribunalu Thiès beneen journal bu ci delu ci wat Sport momit it na ci àtte biñ doon àtte demb lig Nicolay ñu bay àtte bi lig Nicolay wax ci Cheikh bu Cheikh populaire xey ci dikat ak ñun ne ki nga xamante de ji Cheikh Béthio dafa alimenter rapport bu juge bi am na leneen lu ca yees observateur nañu Cheikh Béthio Thioune gannaaw 90 minutes yoo xamante ne ji def na ko janoo ko ak juge bi démb ba muy jugee ca fi nga xamante ne ji moo di ca bureau juge d'instruction ba ci hélicoptère l'armée moom la ñu ko yeb daal di koy indi Ndakaaru réew mi quotidien nañu bañ ko indee ndakaaru rëbës foofee kon la ñu ko yóbbu moom Cheikh Béthio Thioune fa la nekk ki nekk ci guddi gu setegul yéenekaay bi nga xam moo di le quotidien nañu moo ci ay jafe bu Colobane yéenekaay bi nañu Karim Wade moomee booy boo ñu waajal ko libération nañu waaj bu baax a baax sax ndax ci ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo ko fas yéene taxaw am na ca lool bu ñu sàgganul la ñuy séntu ñoom du ko matal journal bi nañu waaye nga jàpp sa gémmiñ avocat yu bari nag lañ ko war a wutal bokk na ci maître Ousmane Ngom bokk na ci maître Madické Niang bokk na ci maître El Hadji Amadou Sall ñoom ñooñu ñëpp dañu kon fa yéene taxaw ngir doon avocat Karim Wade yéen kaay bi dañu waaye des na nag ndax Ibrahima Sarr ak Aminata ñaan ñoom it nañu wàcc ndax ba fi mu nekk nii seeni mbir yëf yi kon seetaguñu ci tàggat yaram laay jeexaleek yéen ak li ci xët mu njëkk stade yéene kaay yi kii kenn dootu ko laajte moo di Bouna Koundoul bokk ci gardien de but yu équipe nationale bu Sénégal Bouna Koundoul ak li ñu ko doon waxal ci ne moo nekk ci tanière bi lu fa xew mu dem nettali ko Alaaji Diouf Bouna Koundoul ak bët bi ñu koy xool terewul yéene kaay bi nañu moom Bouna Koundoul moomee dellu si na dellusi na indaale ay kàddu lii la Bouna Koundoul wax moo di ne na moo di bàyyil Sénégal image bu rafet jërë ngeen jëf